mu ne lii ak xamle la sëñ bi ne bokk na ci mbir yi yéeme yéeme lool yow Thierno Birahim ci weeru baraxlu baksas 1322 yu foofu ci gànnaar dama bindoon ak ñaan di la ca ñaanal maroon sikki sàkk nag ndax yàlla nangu na loolee ma bind ko ñaanal am déet guddi gi nga fanaansee ci gannaaw julli suba gi rek kon maam Thierno dafa fanaan si ca guddi ga mu ne ko nag gannaaw baa jullee suba rek lañ ma xamal ne ma la nga doon ñaanal Ibrahim ci weeru baraxlu baksas yàlla nga ko def ci baraxlu at mi nga xamne mo top ci moma muy baraxlu atum jaksas 1323 nga xamne lam ko ron ñaanal ci baraxlu baksas baraxlu wo del ci rek lañ ko doora xamal mom señ bi ko li nga doon ñaanal ibrahim yalla nga koy doora nangu xamal ko it ne ko bu ñewutoon siyaare ni mu def dana am lu ko dal loo xam képp ku ko sopp rek da nga jooy bu ñëw gi ñëw siyaari si ci at mi la koy dal dana jooyloo képp ku ko sopp sëñ bi ne lii nag daa bokk ci moo ji saati yonante bi yàlla yeex koo feeñal ba feeñale ko ci moom ci digganteem ak ibrahim mi maam ceerno waaye bokkul ci karaama yi wàllu dane wa من معجزات رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وبارك لا من الكرامات